jërë de jëf mbokk public tv daleen jàmm ci seen émission yama Télé dañu gay rek Mamadou di responsable politique ñu dalaloon ko ca tv moom mu xamal ne ay di nit defoo dara te dara ñu ne la rap nungu si loolu xel des naa tey moi je préfère euh, ne pas trop euh, euh, aller dans ci ci ci projection man en tout cas nit kenn mënu laa fekk dara ñu yenu la ak say tank dugal la ci biir kasso ba ñu tëj la mais ça c'est c'est c'est c'est ce qu'on appelle l'injustice en tant que telle. mais kasso ya nga bëgg bari ay délit d'opinion mais loo mais pa mais. pa Alé Niang Papito Kara Ousmane Diagne euh, nu mu tudd sax Cheikh omar Diagne euh Karim Xurum Xaax euh, Pape Modou Seck baaxul ci yéen. waaw mais léegi damay laajte ndax dañoo wara bay bàyyi réew mi ku nekk ku la neex nga saaga. lu neex nga wax ko lu neex mais Modou Awa ñu la du la neex. journaliste Sen TV mel ni ku dank ay kurfañam rek taxaw di ko xaar mën nga tëj ku ne mu noppi waaye gémminu waxkat kenn mënu koo tëj te saa boo ko génnee mu dellu sa ndax bu boobaa day mel ni da nga koy yéene rafle. waaw ñu nekk responsable bi dañu génn ci kaso bi Pape Alé Niang lépp mënuñ ko régler lépp mën nañu ko régler la ko commencé ci jàpp bu njëkk ba ak bu mujj bi yëpp. am luñ ci mën woon a am beneen yoon bu ñu ko mën a jaar foog ñu bàyyi xel ci ni gémmañu taskatu xibaar kenn mënu koo tëj Pape Alé mënoo fexe ba bu génnoon tey tey tey tey tey bu lekkee ba suur naan ba màndi dana wax waaye wutal leen ko ba den métier yow bi ngay jàng da nga jàng atte kii jàng bind kii jàng menuisier kii jàng leneen moom wax la jàng journaliste la ci la amee terangam bu que un journaliste d'investigation vous def une investigation mais vous faites wax na mais vous est-ce que vous avez Ali bu vous avez bu vous avez parce que nag vous avez leen nangul démarche vous avez bëgg muy nañ vous avez nañ ah avez <laughs> ko qui sax avez bi vous mhm. mais buñ ca yeggee vous ñu ci avez lañ cey lii réew mi soppi nañ ko banlieue 13 waaye kenn du ma lay sekk ñu dalaloon ko ca TFM moom nee na président Macky Sall dafa baax rek ndax réew mi xol yaa ngi féex takk ba terewul xol di gis. mais réew mi ku ku ku ku gëmmul xanaa ngay dox di gëmm di nga gis ni liggéey na réew mi sur le plan des infrastructures kenn mënatu koo natable bu ñu jëlee bi rek. bu ñu jëlee BRT bu ñu jëlee route yi ak autoroute yi ak autopont yi ak pont yi fu laa doon jàngale bala maa jóge Sénégal. man mi daan jógee Fatick di wiir yenn saa ñuy dem ba Passy pour mën a jël yoon bu neex. dugg funjuñ man xam naa ni tey jii bu ma dellu Foundiougne dellu naa fa sax ci jamono yi passé damay xam ni dëkk bi am na ko ko liggéey tey jii mën ngaa jugee eh, Ndakaaru aña ji Ziguinchor mën ngaa jugee Ndakaaru aña ji Tamba te yaa une décennie en arrière loolu lépp c'était inimaginable tey kon dañuy wax président de la république gatcha ngalama parce que nit aussi buñ ko joxé pour mu liggéey mu liggéey baax na ngeen ko jaajëf kon dafa baxone rek di wax réalisation yi mais sur le plan matériel. Mhm. son bilan matériel le président de la république amul kenn ko xamni man nga am tuuma boko ci jàmm. waye ki di Cheikh Tidiane Gomis di journaliste walfa Walfadjri mom nee na suñu ko gis ndax tangal ceeb bi mom bakkan rek ñi ci ciy rey waaye bët du ko gis. ndax gis ngeen seen bop ci côté sport ñeel discours à la nation. suñu ka gis. mosuñu kaa gis léegi damay wax. damay mosul gis. xam tàngal ceeb bi. combat arène combat bi def démb ko. dama ne. Euh, euh, euh, arène nationale ko gisoo gisoo tàngal ceeb ah non non gisoo arène nationale euh, yooyu. stade bii. ah DJ Cool. ah euh, man Gomis maa ngi koy xool rek parce que man. c'est-à-dire ah. comprendre ma benn instant. c'est-à-dire ndax moom. waa ji lépp stade maître Abdoulaye Wade gisoo non non doon ma mës a comprendre. non yow nag moom. non dinaa la dugal ci euh, ci parti saa yi. déedéet non parti bi dem na réseau na APR. Gomis xam nga man lu ma comprendre wul. waaw c'est-à-dire ndax yow waa ji ci jëmmam. waa ji ci jëmmam nga àndalul. wala maanaam doxalinam moom moo la doyul. doxalinam. politikam. baaxul ay lii cay lii moo fu ñu jëm ak lu baaxul ci réew mi yëpp ay ku koy tere kon gars yi abonné partage commentaire jàpp naa ne kenn du ko tere